Ousmane Sonko bi ñu bëri dañuy sentir ne ni ko ma jàmbal waxee am na problème ak ay ministre am ku ci mel ni ki yore intérieur justice ñii ne sax ni muy interpellé président Diomaye mën nañu yóbbu ci ñu gis ne ñoom ñaar tam am nañ problème. waaw mais xam nga problème man dama jàpp ne waxante dëgg président Diomaye ak euh, Ousmane Sonko. même étant ay membre Pastef kii da wax jaar nii kii wax jaar nii. maanaam kenn ku nekk défendre sa idée. Mhm. loolu moo xew biir Pastef wax nañ ko waxati ko moom nag àndu fumiste yi ñuy yàgg a ànd boo gisee lu ñaaw ñuy rey nit ñi ñuy faat nit ñi nga ne ci pat parce que président la mu ngi cee mi ngi sa ceeb a ngi niin xeetu ànd boobu ma jàmbal tàmm boobu ànd boo koy séentu ci Ousmane Sonko doo ko am ñun xam nga ñu xew xam waxante dëkk nit doo ko yaakaar pare yëpp ko ñun bu cotiser jotee dañoo cotiser nit ñi mën a campagne dañoo dem fekk casquette casquette boo xam ne bu ñu mënoon a dem jëndee ko 1000 nangam dañoo dem jëndee ko mille francs wala 5000 fekk la ko su boo xam ne mën nañ koo jëndee 3000 dem jëndee ko 10000 jël ay carte euh, argent bi ma jënd c'est 50000 francs ñiy jënd gold te aw ma woon gold bu 100000 bi ñiy jënd 1 million. ñun bokkuñu ak parti yi nga xam ne dañu doon xaar président bi fi doon nekk di ñu jox xaalis wala dañu may ay junni loolu bu amee dañuy waxante dëgg. Ousmane bi mu waxee man li ma ci d'accord wax naa ko nee naa ko revoiraat ko wax naa ko keneen keneen wax ko ay magi Pastef wala nangam nangam mais àndu nawle la ñuy ànd président du yàlla du yonent bi suñu kilifa la <laughs> mais suñu kilifa suñu bàyyi tamit du tee dañ koy wax ne ko boo defee nii moo gën état warut a loolu dëgg la benn nit buy lëmbe taxaw fii ay nit yu ñuy jàpp te loolu ñuy wax noonu maa ngi dégg ma jàmbal comme li nga wax ne comme justice ñu ñu daan nangam mais dëggantaan yow Ameth bu ñu jàpp ci dawal sans nga am permis teg ci damu tànk nit teg ci ngeen dem def conférence de presse giñ ko police fenal police ne dañ cee rocc nangam nangam loolu ni mu garaawee am policier bu ca dugg ba mu am fooy usage de faux mm-hmm. waa jooju la justice te loolu jotewul dara ak ministre de la justice ma jàmbal na bàyyi seytaane ministre de la justice mm-hmm. du justice du juge juge bi la ñuy jàpp nit ministre de justice su mbir amee bu waree auto autosaisir bu waree saisir euh, procureur procureur général lay wax procureur général wax ak procureur de la république ñu woo takk der ñu dem interpeller la jàpp la wala nangam fala la mbir ma yam procureur ba laaj jotee laaj na at mm-hmm. un an ak doo ñaata ñaata sursis. je crois six mois sursis loolu mu laaj mën nañoo xaw ma non at la at euh, sursis ak six mois ferme loolu la laaj. kon loolu yell na kon loolu mooy li nga xam ne moom la président wala ministre de la justice wala contribuable bu mel ni man mais justice bu bu ñu andi nit ku mel noonu fourchette bi boo demee ca code de la route mu wan la ne kii penam mooy six mois de prison six mois à deux ans man justice bi bu dee yoon dafay indi ans rek daal di topp waa ji ne ko six mois de sursis laa la toppee aw ma ci problème mais ñu ne la 15 jours ma laajte ñu ne ci loolu lañ ko wax loolu àtte bu juunu la yoon waxut loolu bu ko tëddoon 6 mois sursis sax donc quinze jours yi muy tëdd man aw ma ci problème man laa la wax wax naa ko waxati ko sama rak ci ñi njëkk a dal ginnaaw bu président joomaay Fallon sëfoor la am na permis mi ngi doon dawal kaar la ay moroomi sëfooram la doon yóbbu ñuy dem mariage. ay nit génne seeni tànk wala di def at indiscipline am benn waay bu ñuy wax Fallou Galassi la ci niñ ma ko nettalee moom mooy animateur ci Lamp Fall TV wala xawma ban télé ci Touba moo leen filmé biñ filme ñu gis ko jàpp leen sama rak trois mois prison la jël ñeneen ñi jël deux mois trois mois bi ma sama ndey di woo di ma ko wax daane ko li ma njëkk a wax mooy alhamdulilah bi ma xamee ne loolu la mu ne ma yow sa rakk ñu jàpp ko nga naan alxam mu ne ko bi nga may woo tiit naa defe naa ne daa faatu wala daa accidenté wala daa mbëkk nit kon bu ma jotee ci lii damay sant te lii du doon pen boo xam ne dana ci tëdd lu bari bi ma waxee parce que xam na man sama xamee fu mu toll ñàkku ma xamee ci wet googu de man cee dox comme ni ci ñeneen di doxee waaye lu ma ko wax xam nga lu ma ko wax hmm. lii mënu ma koy dénoncer ba pare ñëw di ci ñaan te ma sama rakk xam na loolu d'ailleurs bi mu génnee kaso sax man la bu baalu dee am man la baalu parce que nee na li may génn di ko dénoncer te mbir mi am man la jéggalu jéggaluwul keneen waaye ci biir kaso bi ñaari weer yu manqué ñetti fan la tëdd kon tëdd na lu ëpp xaaj dajante grâce di am ci tabaski bi ñiñ grâce yi sama rakk bokk ci kon bu Sidi Diop ñëwee dawal sans permi def yi fi réewande ñu bàyyi ko Ahmed Ndoye ñëw ñu ñu ñu ñu teg la quinze jours prison deux poids deux mesures yooyu ñu doon jooytu ci Macky Sall loolu nag juge la waaye juge bu ko def damaa wax fii ne bi kaawu Ahmed amee dama ne juge ba bàyyi woon Siri Diop moo dam mu tànk ki Ahmed Ndoye fiir parce que bu tegoon daan yam war a teg Siri Diop Ahmed Ndoye dana ci xame ba du yor oto ba du ñàkk a yor permis di dawal oto. ça veut suba keneen mën na ko suba keneen mën na koo def. te yàlla tere waaye bu demee ba keneen def ko keneen ba jël nar a jël bakkanam ëllëg bu naree doon bakkanu doomu Sénégal yàlla na doon bakkanu doomu gis boobu wala mbokkam wala nàngam waaw loolu laay ñaan comme ça moom mu xam ne nii la mette lii laay wax parce que booy àtte dangaa war a teg nekk yow palaasu kiñ lor kiñ lor doomam wala ki loru ci tànkam boo fa tegoon sa doom wala nga nekk ci palaasu benn policier bu ñuy wax Lat Grand Ndiaye ay xale fils à papa ay doomu ancien ministre ci jamonoy euh, Macky Sall fii la ñu dawal mandi dem baale mandi fekk ko ci rond point kii bi muy def liggéey ñu fel ko ba mu faatu gis bi atelier bu jëloon kooku teg ci place xool nem loolu mën naa nekk ay conséquences la ba pare amen dooy doon ko ñëpp xam nit ñi mën cee jàngate yaru ci parce que daa moom daa gën a baax yàlla bi ñuy wax naan ku def lii ñu def la lii dafa am loo xam ne du yelleefam indigence d'accord indigence fan lañ koy ñaan am yow yow kii euh, si mi ngi mel ni ma indi fii sama sama sama sama sama moto. Hmm. vitesse la il faut permis A amoo ko saa wolof jékki-jékki ne daanu fii wala kenn daanu fii nga wàcc jël sama caabi parce que dama miir nga jël sama caabi taal moto bi départ ñu jàpp la wala nga mbëkk nit biñ lay woo di la àtte nga ne ah li tax ma def ko kat borom moto bi moo daanu nekkoon ci kii ma war koo jëlali pomp asmaam wala nàngam ak nàngam ak yu demee noonu. Mm-hmm. wala nit gaare otoom. Mm-hmm. daanu ci biir nga fekk ko ci oto bi euh, jël yóbbu hôpital moment bi nga koy def nga fiir nit amoo permis waroo dawal te amoo permis mm-hmm. waaye bu boobaa bu ñu àttee ne ah kii lii bi mu koy def. nangam ak nangam la bu boobaa voilà foofu la ñuy waxee ne nga indigent mais waaju ku reer ba regg réew ba dee di jaay fuuy aka dal ngaam am gat taxaw di digle càngaay te sanguwut ndekete ndekete permis sax amu ko ak li muy ñàkk jom kooku ngay defal naan indigent ci ci ci mbiram dëkk bi gis nga faw ñu teg ko ci rigueur fii nag kenn complexé wu fi kenn du juge ba du magistrat ba du sëriñ ba du journaliste du keneen ak keneen ak keneen ak keneen am na nit lu mu def loo xam ne bu ñu ko defee ñu xam ne kii yayoo na njéggal mais am na nit lu ñu kii boo ko jéggalee ñeneen keneen def ko ñi faatu ñëpp yaa leen faat. mooy impunité. ma ne la man xam nga wax naa ko fii keroog seen mbokk journaliste di ree bi ma benn journaliste nee ma sama waay ma ne ko du ma sa xarit ma ne ko man du ma am xaritu journal journaliste du xarit policier ak alkaati waaye juge du xarit man bu may xaritoo médecin laay xaritoo. bi coow li bare ma ne ko li tax may wax loolu mooy journaliste bu defee liggéeyam nga doon xaritam ak bañ a nekk xaritam a ci yem la mu war a wax bind lay bind. bu doone bu defee liggéeyam nga doon xaritam ak nga bañ a doon xaritam nga am xaalis wala nga rafle moo ci yem la mu war a àtte lay àtte. policier bi bu doonee sa xarit amalu la njariñ la ma waxoon njaay bu may wër yaakaar naa ñaari xarit laa am ci kaw suuf kenn ki Cheikh Kéré loolu keneen ki Ousseynou Ndiaye un gendarme. mais dama ne leen li ma wër te wër mooy bu ma fekkoon ci lu ma war ci noonu la may jàppi du ci xool parce que maandu gi ci moom a tax loolu mooy dëgg mais bu ma nee médecin laay xaritool bu xarit dee am mooy médecin bu nit jógoon ci këram wàcc ci këram di sàcc ci kër médecin bi far daanu mbagg mi rëq wala dara dal ko médecin bi da koo war a jël defal ko lañ war a defal patient même bu dee dafa ñëwoon këram pour sàcc wala ñëwoon këram pour violer njabootam wala nangam wala nangam wala nangam gis nga réew mi li Ousmane ko wax mooy dëgg c'est des complexes ñenn ñi taxaw fii di wax nit ki li mu wax est-ce dëgg la wala du dëgg mais koo tëj même pas kii kuréel la yow permis faux usage de foo mu am sax loo xam ne nii waroon instruction sax la waroon a dem parce que waroon nañoo enquête scène bi ban policier moo war a ñëw lalal nit ki basan mais loolu mooy problème bi problème mu ger rek moo indi problème yi ci tali bi parce que bu ñu wóoroon nit ñi ne koo ger ñu yóbbu la kaso kenn du geraate mais policier bu leen wóoroon ne ku ñu laaj ger koo ko bàyyi lim fi lim fi bàyyi dem dem dem dem ak ñoom ci yoon dootuñ ger war na nañoo xoolaat seen statut fay leen li ñu war a fay ak yu demee noonu mais juge dama ne fii laa ko waxaat juge bu xool nit ci anam yu mel nii bàyyi ko mm-hmm. bu loolu naree amaat waroon doon exemple ba kenn dootu ko def bi sa jëf jooju bu taxee nit def ko su demee mënta ñàkk a rey benn doomu Sénégalais yàlla na yu sa doom lii maa ko wax d'accord